waaw asalaamaaleykum mbokk internet Lune TV yi ñu ngi leen di siyaat di leen bëggee yéen ñëpp saa su nekk comme ni ñu leen ko daan waxee rek seen émission CAN 2024. tey nag si ngeen ma gisee fi ma taxaw nii maa ngi fii ni notaire gis ngeen arrière plan bi nekk sama ginnaaw affaire ni mu yànjee macha allah tey nag euh, tey dañoo am invité tey. invité lañ am mais balaa ma leen di wax invité bi dama leen di jox tey euh, match yi nga xam ni moo fi joto ruus ci li nga xam moo jëm ci huitième de finale yi ci diggante Angola Namibie Nigéria Cameroun Guinée équatoriale ak Guinée Égypte Congo Cap-Vert Mauritanie Sénégal Côte d'Ivoire Mali Burkina Maroc Afrique du Sud tey gis ngeen ko huitième de finale yi noonu la demee tey yaakaar naa ni Coupe d'Afrique bi ñun ñëpp gis nañ ko en phase de poule ni affaire yi compliqué yi ci am yëpp ni mu ci bare tey am na équipe yoo xam xalaatoon nañu équipe yooyu yëpp dinañ génn mais tey gis nga yàlla dogal na ku ci mel ni Ghana ku ci mel ni euh, Algérie euh, ku ci mel ni Tunisie tey ñoom ñëpp gis nga leen dañoo toog ak yeneen i équipe mais nii la mënoon demee donc di leen euh, wax ni rek tey émission bi nii lay demee dañoo am invité ki nga xam ni mu ngi ñu ngi koy wax ci turu Harouna Harouna mën nga dugg si bisimilah Harouna maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay gën mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax naka yitte yi. ça va bien bien lépp tawféex. sant yàlla bu baax alhamdulilah. Harouna waaw euh, dalal loon seen émission CAN 2024 Harouna nan nga gisee CAN bi. bon maa ngi lay nuyu Gabi di nuyu uh-huh. sa naataango Zouk. Uh-huh. di nuyu téléspectateurs yi internet yi maa ngi lay nuyu. Uh-huh. bon CAN bi ni mu ko gisee mooy. CAN boo xamante ne daa am beaucoup de surprises. dëgg la yoo xamante ne parce que euh, sànq dégg naa la si sa présentation ngay wax. Mhm. kenn ku ne xam na ni qualification. Mhm. mel ni équipe Côte d'Ivoire doon loo xamante ne. dëgg la euh, mhm. lu la. Euh, parce que ku gis na ni. la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire moom. seen équipe moom. waaw depuis keroog dernier match. am na tension boo xamante ne jógoon na fa. dëgg la te boobu même les les joueurs ont été menacés. waaw ba maanaam gars yi moom. dañ doon kaas équipe euh, Côte d'Ivoire mais à la dernière minute. Mhm. Euh, Côte d'Ivoire a été qualifiée. moom surprise la. dëgg la vraiment parce que. ak huitième de final bi moom yaakaar naa ci li ñu war a mën a gis dëgg dëgg dëgg dëgg équipe yi tey seen seen seen seen seen seen seen xarañte seen jàmbaarte tey ci li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique bi léegi alors dañuy demaat ci beneen bi ci mel ni mooy Égypte ak Congo. bon Égypte ak Congo également parce que boo jëlee si ñaar yi nga xam ne. Égypte Égypte mon favori. Je Égypte du il a été champion d'Afrique à multiples reprises le camp en ay années successives. successif Congo. xam nga football équipe champion la. la RDC par rapport à l'Égypte. Égypte. palmarès la palmarès Congo. Congo est def

moo ta boo gisee ñu ne Coupe d'Afrique daa mhm. surprise parce que on dit on a tendance à dire que euh, en compétition y pas une petite équipe amul ah, parce ah. que mhm. jëlee jëlee euh, Gambie bi nga xamante ne mooy mhm. loolu a été dini an na set am na équipe yoo xamante ne Gambie moo leen moo leen empêché ñu qualifié ah éliminatoire ñu gagné leen ñu ñëwee tamit euh, si si si phase de gis na ko kon mu match mhm. ben enjeu la lay andi kon boo yaakaar man man équipe sama équipe mo moo ëpp euh, mhm. maa la meun mhm. mais ci biir terrain bi ah résultat day woné benn passe lay andi manam day différent par rapport yow nit ñi la ñu foogoon ak yow sa qualité ak sa capacité mais tamit ak sa niveau de parce que léegi amul ben petite équipe bu am deug la en tout cas en tout cas dal li ci meuna xew te li ci mënti am mom vraiment moy Coupe d'Afrique bi actuellement nii à part de 8e de finale bi amul ben match bo xamné tay dina yomb très sincèrement amul benn match boo xam ne day yomb tey imaginez match bi nga xam ne mooy Cap Vert Mauritanie Mauritanie gis nga li mu indi ci Coupe d'Afrique bi. Ah, ah, waaw effectivement. Mauritanie Cap Vert aussi. waaw ñoom ñaar seen match boobu aussi dina metti trop. doo daal pour tënk daal en résumé daal. Uh-huh. match boo gis ci huitième de finale. Uh-huh. day metti uh-huh. te beneen anam la. dëgg première bi mooy maanaam. Euh, équipe boo dajal bu ne. dina am équipe boo xamante ne moo ëpp moromam. physiquement mhm. tactiquement et mhm. mentalement et tamit si wàllum palmarès da xam ne mhm. bii. mooy favori par rapport bi ndax bii lu mu jël si Coupe d' Afrique. bii na jëlu ko. c' est bi mooy maanaam euh, match de finale. du bokk ak match élimination. parce que huitième de finale mooy élimination direct la waaw loolu amul. waaw calculer su mu dóor da ngay ah, <laughs> amee défaite di calculer calcul moom tactique amul. fii moom c' est élimination directe. direct kenn ku ne yaay da ngay def tes premières occasions ngay concrétiser nga xam ne mooy la sinon mhm. moo tax kenn ne day jéem a rey boppam parce que xam ne ni bii buñ ne dóoree amul benn match bu nga yaakaar pour mhm. combler wala kee bu niilee mhm. man ma xool arrangement comme lu lu mel ni Côte d'Ivoire tout récemment kenn ku ne xam na ni pour six mètres six bu doon ñii dóoroon nañ ko c'est vrai moom dañuy moom voilà c'était le fiasco pour eux mais uh-huh. bon malheureusement uh-huh. tam beneen match muy ki nga xam ne mooy Mali ak Burkina Faso boobu tamit. le euh, Burkinabé quoi suñu cameraman bi. xam moom euh, Burkinabé la donc tam mom ak Mali te yaakaar naa ni mom même mom match mi ndeysaan daf ma dan vocal nan mom mom non non li mënu ko comprendre jaaxle ci ay équipe am et tout ma ko non li football na té l'essentiel moy mooy qualifié te qualifié nañ mais tay ñom la ak ki nga xamni moy Mali. Mali tam gis nañ aussi mom limi football vraiment. waay euh, Mali Mali Mali am nañ équipe. am nañ équipe parce que. Ah. boo jëlee coupe d'Afrique bi passé ku ne xam na ni Mali lu mu andi. kon bu ñëwaatee ren. Mhm. du ñu la xam ne ay équipe boobu moom bëri na mhm. ay ndaw mais boo yoo xamante ne <coughs> c'est des jeunes euh, ambitieux dynamiques. mais le le Burkina également bu équipe boo xamante ne bu bu fort la. parce que mhm. surtout seen attaque. boo boo jëlee ñu mel ni. Euh, euh, Bertrand Traoré uh-huh. kooku koo xamante ne un joueur expérimenté ah un joueur expérimenté malgré maintenant uh-huh. moom amuloon ay club uh-huh. il avait des difficultés dans ces clubs pour mu am jouer mais gis nga lu mu wane moo loolu mooy wane loolu moo indi sax toogaayam banc il reste souvent dans les bancs mais bu duggee da ngay gis ba maanaam am na changement boo xamante ne andi na ko mais tellement fort moo tax Burkina Burkina Faso tamit euh, équipe boo xamante ne macha allah vraiment léegi bu loolu weesoo dañuy ñëw ci ki nga xam mooy Maroc Afrique du Sud Maroc classe mondiale Maroc bi nga xam ni moo demoon euh, demi-finale j'espère ci euh, ci coupe du monde bi voilà donc gis nañ ko te gis nañ ko aussi même bien vrai que ni lepp lepp gisaguñ ko ci match yi euh, lim joxe ci phase phase de poule donc mais momit qualifié na te mom la ak ki nga xamni moy Afrique du Sud lan la ñuy xaar foofu match boobu. ah loolu tamit war nañu xam war nañu xaar tamit match bu bu neex. Mhm. match boo xamante ne bu am enjeu. Mhm. Euh, comme li nga ko waxee Maroc actuellement. Mhm. moom mooy meilleure équipe. ci classement. ça parce que comme li nga ko waxee mondial bi passé kenn ku ne gis na. fu mu yamon. mu kon n'empêche que le uh-huh. Sénégal mo nek champion d'Afrique uh-huh. mais le Maroc également mom franchement uh-huh. euh, équipe bo xamantene ne kenn du ko comme ku suivez e mondial bi passé eh, mais tamit euh, euh, comme lu ma waxee nag ñii tamit dañuy jëm bañ couteau coute défier équipe bo xamantene champion du monde comme ken moom moo maanaam daal parce que bo boo dajee enjeu bi fu muy amee mooy da ngay daje équipe boo xam ne soit champion d' Afrique mhm. ou bien champion du monde xam ne kii moo ma mën mhm. ni man damay def mhm. kutóokut pour défier ko pour maanaam soit moo mu am si niil mais fii moom niil amul boo amee niil tiré bi la mais bu doon ah sax euh, match de poule rek <laughs> uh-huh. foofu moom boo amee niil sax yow uh-huh. déjà comme victoire mais fii moom uh-huh. victoire victoire ah boo amee victoire am na la fii moom des gagné dem ñibbi perte dem ñibbi ah oui ah la donc bu loolu weesoo nag ah Euh, le pays organisateur mom moy daje ki nga xamni nak moy champion d'Afrique moy Sénégal wara a dajeek euh, tey ki nga xamni moy mooy euh, Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ñëwé ci ay difficultés yu doy war tay gis nañ troisième match am biñ ko dóoree 4-0 ni seen dëkk bi mel boy génn nañ saccagé nañ saga nañ xex nañ tok nañ ay bus et tout donc yalla def ñu tok di patienter ci ñaari match benn match bi nul ñuy xaraat benen match bi donc légui ci kaw benen match bobu non nak ñom ñu ñëw yàlla def ñu qualifié war a dajeeg Sénégal tey match boobu ni muy teg et pourtant biñ biñu bi bi bi ñu leen nee qualifié nañ ñoom ndeysaan dañ leen a war a ñu jubilé kontaan di wax naan léegi nag fii la ñu war a gisee les vrais éléphants donc kon xam ngeen ni match boobu Sénégal Cameroun euh, Côte d'Ivoire du moins du mës yomb te match boobu du yomb lan nga may wax ci match boobu. bon match bi man man uh-huh. soo reetee moi man dama koy nommé. Uh-huh. Uh-huh. mooy final. mooy final. Euh, si lan laa ko mooy. benn mooy Côte d'Ivoire qualification mom mhm. dafa jafe woon. Mhm. par arrangement finalement mu mhm. dem. ñaaral bi euh, si lolou loolu tamit nañ gisoon ni. Euh, la Côte d'Ivoire moom gis na ay supporters lu sa saccagé nañ. même y avait y avait ça des morts. des morts ah ouais même euh, le le le bus des des joueurs a été attaqué mais bon amna ni par des forces de l'ordre finalement lay gàmmee joueurs yi sax. gars yi les autres ont été menacés. waay c'est ça saaga nañ moom gars xam naa ne bu. parce que même bi ñuy génn stade bi dañ leen doon protéger. moo moo tax sécurité dafa amuloon. Mhm. xëy na musiba mooy am. parce que gars yi moom sama ils étaient tellement illustré euh, mhm. meroon nañ mhm. na seen joueur na lu nekk dégg ngeen supporter yi nekk wax nañ ko kon loolu tamit day day day day doon leçon de morale pour joueurs yi ñu gën a am jom ñu gën a am fulla ak fayda pour kutoo kut bëgg a défee Sénégal mais bu ñu delloo si contexte historique mooy ginnaaw mhm. Mhm. dañu xam ne euh, Côte d'Ivoire boobu mun naa ko tuddee sax bête noire Sénégal parce ah que uh-huh. euh, moom da daan gagné Sénégal à mar phase phase phase finale da ngay gagné mhm. Sénégal ñoom ñoo ñu fekk moom moo éliminé Sénégal kon uh-huh. amoo tamit benn match boo xamante ne fii dañ ko amee suñu stade ñu dóor ñu ba gars yi supporter ñu mettre ah stade uh-huh. mooy andi woon suñu sanction euh, ñu joué suñu match à l'extérieur mais dina neex Sénégal tamit day bañ. Mhm. coûte que dévier. Uh-huh. comme né ah mais buñu faté parce que euh, le contexte a changé. Mhm. l'historique également n'est uh-huh. pas le même. Uh-huh. les joueurs également ne sont pas les mêmes. les mêmes benn génération bi la. léegi génération bi ni tamit. parce que gisoon nañu ko Cameroun. Cameroun loolu lañ doon bako Sénégal mom ñun ñoo leen mën ñun ñoo leen mën. ndax ñoo leen éliminé. ndax euh, fi lañ éliminer en en quart de finale. en quart de finale en 2017. partie revue. kon mais ku nekk gis na ko dañu nañ ñoo leen ah. lu woon wolli na. su ma su ma juumee kon instant instant ñun dañuy ñëw. dañuy ñëw ah, ah oui vraiment vraiment te te te en même temps sax suñu booy ñun lañ ci yaakaar quand même. ñoom ñoo ñu war a won ni xam nga euh, Côte d'Ivoire bu njëkk ak Sénégal bu njëkk léegi bi Côte d'Ivoire Sénégal bu bees la bi nga xam ne booy yi moom macha allah mën nañ li ñuy def. am nañ fulla am nañ fayda te dañuy muye la mayoo vraiment te booy bu ñu footballee ñëpp d' accord te très sincèrement nag gars yi sénégalais am nañ ci ñoom yaakaar bien vrai que ne nag dina nekk benn match boo xam ni dina compliquer trop trop trop trop trop sax ci Sénégal parce que déjà dajeeg un pays organisateur ci lu tolni 8 euh, huitième de finale d'ici si dajeeg un pays de euh, organisateur dafay xaw a compliqué arbit euh, arbitrage donc manam dina ñom en fait dañuy bari les ay ay ay kii yu bari quoi donc lool non aussi foog ñu bàyyi ci xel tamit. waaw pays organisateur a été toujours favori. favori boo déggee ah favori la a été toujours. Mmh. plus de privilèges que euh, n'importe quel pays mmh. parce que moom si côté arbitrage bu nga ko tuddee sànq moom lequel nous sommes na table. parce mmh. que ku ne xam na ne boo pour si euh, équipe organisateur da ngay am jafe-jafe déjà leurs joueurs sont seront toujours favoris par rapport maintenant à aux joueurs adverses kon loolu moom boo benn avantage là si si côté pays organisateur euh, beneen bi mooy Euh, dina doon tamit supporters yi tamit parce que ñoom ñu ñoo leen ëppale ay ay ay ay supporters parce que ñoom seen la ñoom tamit loolu loolu parce que mhm. te te ne supporters yi ah. ñoom ñooy galvaniser joueurs yi mhm. ndax ambiance tamit day motivation la boo xamante ne la parce que ñun gisoon ko fii euh, mhm. ak euh, Égypte fii nii ba gars yi sénégalais wooyu ñëpp ne équipe wooyu ñëpp ñu ñoo supporter mais galvaniser temps bi du mu doon galvaniser gars yi donc finalement loolu moo loolu mun mun nga ne daa contribuer mhm. suñu victoire bu ñu dóoral fii euh, Égypte euh, suñu stade Ablaye Ablaye Ablaye mhm. moo ta mhm. ñoom privilège bu ñu am côté arbitrage ak ah, tamit côté public mais tamit loolu ah, loolu moom la ñu bëgg a kutookut pour dindi ko mais attention Sénégal tamit danañ naan ah yeneen doon éliminé chaque année ngeen éliminé ñu tamit loolu dañ koy bañ te loolu lañ koy bañ comme ni ñu def yoon te loolu lañ bëgg kutookut pour defee Cameroun naan ah démb

donc kon xam nga ni ñom stade bobu noonu dina fess del del del bay tuuru mom inshallah rabbi mais dal de toute façon li ma ci mëna wax té xam ko ci moy Sénégal ñun ñun ñom match mais pas Côte d'Ivoire mais Sénégal mo am match. Ouais, Sénégal mo am match. parce que ah ah. tamit euh, c'est le pays euh, il est maintenant le le vice champion d'Afrique. Afrique. Mm-hmm. instant yi moom moo moom raw par rapport ci mm-hmm. légui mom day jëm a coûte mm-hmm. pour maintenir maintenant ce statut là. Ah mais également moom. Sénégal tamit bu faté gars dañ naan manko outi wat ndamli ndam li loolu boobu noonu avant ñuy dem mhm. notre président de la république mhm. euh on le salut de passage mo wax na len manko outi wat ndamli uh-huh. kon tout le peuple sénégalais est derrière eux mhm. kon lu ñu doon naan moom maanaam indiwaat deuxième étoile te man inshallah man wax mu na sa deuxième étoile mais pourquoi pas troisième nañu am trois euh, étoiles consécutives yoo xamante pour ñu defoon comme Égypte ñu ko défé defee dara ak yeneen équipe nañ ko nañ wax ni mom moom yéen li ngeen defoon ñun tamit mën nañ def peut-être lu war loolu kon uh-huh. ñoom ku toogu ñoom kenn ku ne uh-huh. si boppam uh-huh. ñoo ngi xam ne maa ngi ndam li kon maa ngi koo utiwaat ndam li moom mooy loolu et tamit lu may wax joueurs yi xam ne kenn ku ne nga xam ne euh, match fas Euh, huitième de finale lañ nekk. foofu mhm. élimination directe élimination directe. li def mooy les premières occasions on les concrétise. on concrétise les premières ah occasions. Ah dañ ko dugal football moom. Mhm. doo dégg ne mhm. kan moo football baax. ku gagné lañ wax. te gagné mom dugal bii rek. dëgg la amee occasion dugal rek. loolu kese la mais waaw parce que fii mom amul xaar.

waaw man tamit maa leen di sant mhm. Gabi di sant suñu naataange Zubayri di ko mhm. naan tamit moom euh, bon sens tamit euh, mhm. si huitième de finale yi euh, di jaajëfal ñëpp di ñaax ñëpp di naan ah te ñëpp bokkoo booloo ah boo ko yéene xool yi doon benn dañu ñaanal suñu lion yi yàlla ñu am ndam si kaw Côte d'Ivoire yàlla tamit ñu jël tamit suñu deuxième étoile incha allah mais loolu avant tout waa ñom ñoom liggéey ci ñom la ci ñom la dëgg la course bi ñokoy koy mhm. ñaanal moom day def classement léegi lu ci dess mhm. joueur yi ñokoy def mhm. parce man mosumaa gis un course marqué des occasions de but ah moo des fois bu ñu critiqué Aliou Cissé ko non joueur yi man mom lu muy def entraîné boy tek plan et ah stratégie tek teg ak schéma tactique bu pare le reste maintenant c'est aux joueurs voilà ñoo nekk si terrain bi ñom ñoo voilà ñu wéy le maillot de concrétiser les occasions comme li wax ni les les occasions les premières occasions on les concrétise boko ko